tariixa cheikh soo ko jëlee soo dee def lu bon bu yàggee nga bàyyi ko saabu kay dindi tilim moo ko tax a am de dem leen ngeen ñaani salaatul faatih boo jëlee tariixa cheikh soo bëggee alal mu yomb la jëlee tariixa soo bëggee sutura mu yomb la boo jëlee tariixa cheikh booy jaay lu baax dangay jaral boo jëlee tariixa cheikh booy sukuraat dafay gaaw boo jëlee tariixa cheikh boo ñaawee sax bu yàggee dangay rafet boo jëlee tariixa cheikh dangay dem aljanna sa yaay day dem aljanna sa baay dañuy dem aljanna say doom dañuy dem aljanna sit yu góor yi di dañuy dem aljanna ku la may jabar dem aljanna ku may jabar dem aljanna bu ci dàq mooy ba liggéey da ngay dëkk ak Serigne Babacar demoon Europe